pour euh, peut-être sanctionner positivement ou négativement euh, li mu fi euh, liggéey ak euh, yorin bi mais tey boo diggee waa APR di def bilan wu président Macky Sall di ko ndamoo génne livre blanc lan moo ciy nekk sa réaction yéen ñi nga xam ne taxawal ngeen kuréel gi di F24 juste pour jàkkaarloo que le président Macky Sall. Euh, bon peut-être que am na yu bari yoo xam ne évaluation moom boo koy def da naan lan mooy. lan mooy objectif départ. Macky Sall bi ñu ñëwee dafa ne euh, moom nekk fi pour tabax ay mbedd tabax ay route ay non dafa ñëw pour soppi jikko yi. indi restauration des valeurs et de l'état de droit. loolu la waxoon. donc objectif boobu est-ce que. atteindre gestion sobre et vertueuse. objectif boobu est-ce que atteindre na ko est-ce que jëf action yi mu posé. pendant douze ans dëppoo na ak li nga xam ne moom la yéene woon ba Sénégalais yi élire ko parce que qu'en vérité man wax naa à plusieurs reprises que Macky Sall dafa am intelligence déglu population sénégalaise yi xool li nga xam ne moom lañ bëgg ak li dëppoo ak marche historique réew mi mu wax ko damay réduire sama mandat damay def gestion sobre et vertueuse damay def la patrie avant le parti du ma du ma euh, protéger kenn mm-hmm. et cetera et cetera donc yoo loo xam ne c'est pas euh, un bilan matériel qui était attendu de lui mm-hmm. c'est d'abord un bilan immatériel donc à parti de ce moment-là boo toogee waxuñu dara dul bilan matériel mm-hmm. nga xam ne quelque part euh, déplacé nañ curseur bi parce que dafa mel ni dañuy jaawale li nga xam ne mooy li dañ koy gis mu fës ak li nga xam ne mu am solo te kenn du ko gis ñaari ñaar yu bokkul la am na loo xam ne dafay fës ñëpp gis ko te peut-être ëppul solo am loo xam ne am na solo lool te bët du ko gis xel moo koy gis moo loolu la ñuy wax bilan matériel ak bilan immatériel donc bilan matériel mu ngi fii am na lu bari ñu ci wax d'ailleurs mm-hmm. parce que boo gisee yenn teer yi est-ce que priorité la woon est-ce que defoon train Dakar Bamako gënuloon priorité par rapport aux terres hmm. est-ce que coût bi ñu ci def ci boppam est-ce que gënul cher coût yi yeneen terres yi donc loolu yëpp mooy ay laaj yoo xam ne mën nañ ko ci def mais surtout man de mos naa bind Macky Sall lettre je crois en 2015 au plus tard ne ko boo sa mandat di jeex li ñuy mesurer du mat bilan matériel bi taliyeeg teer yeeg bi moo ci kam solo parce que loolu la ñëpp doon xaar parce que ñëpp dañ ñu bëri dañ jàpp en tout cas que Wade dafa salfaañe valeurs yi ba salfaañe dérégulariser fonction publique bi dérégulariser yëpp donc moom dafa war ñëw restaurer ko moom si boppam moo ko wax donc boo gisee ñuy wax loolu mais nga xam ne ñu ngi ci li ñuy wax propagande ni ma ko waxee sànq mm-hmm. propagande euh, visée bi comme ni ma ko waxee mooy ñu applaudir la mu diir kële mooy euh, ce qu'on appelle euh, le da ngay jël euh, opinion bi façonner opinion bi euh, par le mensonge c'est ça la propagande le façonnement de l'opinion par le mensonge ou dit autrement la fabrique du consentement cest que da bëgg Euh, opinion bi jàpp ne yow li ngay wax mooy dëgg li ngay wax moo moo baax mu ànd ak yow applaudir la donc fabrique consentement boobu li koy li koy sous-tendre mooy euh, façonnement de l'opinion par le mensonge genre manipulation voilà c'est ça la manipulation loolu moo loolu mooy manipulation loolu loolu li may wax mooy manipulation donc manipulation boobu nag boo ci nekkee mais li la arrangé ngay wax donc wax li nga xam ne mooy euh, yàqadari kale hmm. wax li nga xam ne moom moo moo lay yëkkati moo lay fësal mooy wane ne yow ku baax nga wala lu baax nga def donc loolu ci politiciens yi loolu mooy seen liggéey hmm. c'est-à-dire que boo dégloo boo liiree borom xam-xam yu bëree bëri bëri bind nañ ci wane ne démocratie bourgeoise hmm. li li ko li ko lal mooy ñi wax plutocrate yi nga xam ne ñoo am alal yore réew yi. lépp seen euh, pas-pas mooy naka la naxee askan wi naka la ñuy fexee ba askan wi jàpp ne ñoom lu ñuy wax dëgg la. manipuler leen façonner leen ba pare nag dugal leen ci li nga xam ne mooy divertissement distraction maanaam du ñu xatal dara du bu ñu liggéeyee waa wàcc. seetaan télé seetaan football euh, déglu musique drogue sexe loolu la ñuy di yóbbu. bi nga xam ne ñooñu dañuy dindi li ñuy wax capacité de réflexion critique donc esprit critique boobu boo ko dindee ci nit daanaka bàyyi moom moo fay des. pour que ñoom ñu mun a nekk fële di def lu leen neex def leen neex. kenn du mun a donc boo ko boo ko bàyyee buñ boo defee noonu nit nag da koy manipuler maanaam bu toogee télé nga yéene expert yoo xam ne dañuy fen de ay expert ñuy wax mm-hmm. li may joxe souvent exemple mooy guerre guerre guerre Irak bi. Mm-hmm. guerre Irak bi euh, président américain ak président Angleterre. premier ministre Angleterre ak ñeneen ñi wax nañu ba monde sa Afrique monde monde bi yëpp jàpp ne Iran ay armes yu garaaw fa nekk Iran dañ ko war a bombardé bañ nangu ko ñu dem bombardé ko te fekk ay fenn kese la le façonnement de l'opinion par le la fabrique du consentement loolu mooy manipulation donc boo jàppee loolu euh, nga xam ne ñooñu te ñoom muy muy fii mu feneen presse bi yëpp dañ koy jënd mm. te tey sax la waa léegi la wàññeeku ak réseaux mais bu njëkk pays boo dem quatre vingt dix pour cent presse bi ñooñu ñoo ko yore alal yi. Mm-hmm. pour manipuler pour lu bëgg li ñu bëgg jaay ñu mu jar li ñu bëgg teg ci réew mi ñu teg ko ci donc noonu la ñuy def seen loolu mooy loolu mooy démocratie bourgeoise donc loolu boo ko gisee euh, li ñu def France def ko Amérique mu ngi Sénégal donc ñi nga xam ne ñoo réew mi noonu la ñu def mm-hmm. léegi nag. évidemment euh, réseaux sociaux yi opposition aussi da ciy dugg. Mm-hmm. parce que xam nañ ne ñoom itam pour ñu jot réew mi il faut ñu def noonu. donc gis nañ États-Unis Donald Trump gis nañu Brésil président bi daanu noonu la doon def boo demee Inde même chose Italie gars yëpp. Mm-hmm. opposition ak pouvoir système de manipulation la demee parce que opinion bi il faut ñu ànd ak ñoom pour ñu ànd ak ñoom il faut ñu fexe. fabriquer consentement maanaam ñu ànd ñu juboo ak ñoom ñu dëggal li ñuy wax. Hmm. tey lan moo wax a nekk sooru président Macky Sall par exemple am na ñu fi yëkkati pétition euh, plainte dem na cour pénale internationale euh, ngir li fi xew di ay crimes de sang mais aussi crimes économique comme ni ko euh, collectif victime les victimes de Macky Sall waxee est-ce que jàpp nga ne dañu war a xuus ci loolu walla euh, baale booloo bi président wote woon dans son tout premier discours ci la ñu war a wéy. non non non c'est-à-dire que euh, ñun bi ñuy euh, en tout cas F24 la ñu doon wax mooy suñu credo mu nekkoon la paix avant tout la paix au de tout la paix adossée à la vérité donc fu dëgg amul. defe naa ne jàmm pour mu am fa sax problème la donc il faut ñu teg lépp jàmm. bu fekkee ne euh, am na jëf yu jëf yu def ci réew mi dañu war a enquête bi mu leer ne lii nii la demee kii moo ko def bu ñu tegee responsabilité yi ba pare nag ñu ne nañ xool dañuy sanctionner auto de quoi est-ce que dañuy baale totalement est-ce que dañuy bàyyee partiellement mais loolu li ñuy wax part am na amoon na Gambie am na euh, Afrique du Sud commission Euh, vérité et réconciliation loolu mën a am ci réew mais il faut ñu situer responsabilité moo tax loi d'amnistie bi dañ ko war a génnee dañ war a voté ñu génne ko parce que impunité baaxul ci réew boo ko defee impunité ñii ñeneen aussi ñëw def la même chose defal seen loi d'amnistie dem seen yoon donc il faut que ñu saytu yëpp euh, et je crois en tout cas ci euh, assise de la justice am na ay arguments yu ñu développé woon pour dindi irresponsabilité président ak juge même les juges parce que il n'est pas question ku ñu bàyyi nit ñi ñuy def leen neex ba pare dem tëdd seen retraite non non il faut que irresponsabilité boobu ñu dindi ko ba mu jeex ba nga xam ne ku nekk di nga rendre compte reddition des comptes bi warul nekk rek le petit policier ou le petit fonctionnaire no non il faut mu nekk ñëpp ba nga xam ne kenn du nekk cim réew di fa def li nga xam ne naka dul yoonu ba pare dara du ci topp donc euh, man di ma jàpp mooy euh, li fi xew 2012 ba léegi dañ ko war a saytu bu baax a baax baax saytu bi nag mooy ñu def lépp ci yoon teg ko ci dëgg mu leer nañ li ku nekk li nga def ñu sanctionné la à la hauteur de ce que tu as fait muy Macky Sall muy beneen ministre muy beneen euh, gendarme wala beneen chef d'armée. kon Macky ci boppam war na bokk ci ñi ñuy. ah oui oui bien sûr bien sûr bien sûr parce que en vérité euh, man mos naa wax que euh, li fi xew après sur la question de de Sonko ki Sall est responsable parce que ba mu commencé même bu ci bokkul au départ ba mu commencé xale yi jóg population yu bëri jóg war na wax ni lii kat nañ ko saytu bu leer nañ parce que n'est pas question ñu dem ba quatre-vingts morts juge bi ne viol amul non ça c'est pas possible lui il est le président de la République donc bi ñu commencé premier première escarmouche mu mmh. gis ne population yi ñu bëri d'accorduñ ci di jóg di xeex dañu war a teg lépp enquête bu baax bu viol amee mmh. ñu continuer bu viol amul ñu continuer puisque viole amul nag mmh. ñoom war nañ ko arrêter depuis longtemps donc ça veut dire qu'ils ont échoué quelque part ou ils l'ont fait et s'ils l'ont fait exprès ils doivent en répondre ok pourtant tey li ñuy waxal Macky Sall ci euh, wàllu manipulation ci ñàkk sàmmante ak kàddoom ñu ngi koy tàmbalee waxal ñi pour yow teel na. pardon ñu ngi koy waxal ñii li ñu doon waxal Macky Sall tàmbali nañ ko euh, wax Ousmane Sonko. non euh, je crois que je crois que teel na parce que Macky Sall muy euh, toog na fi presque sept ans. li ñu ko reproché bariwul. Hmm. donc premier premier septembre bi à part bi ñu gisee ne quand même Macky Karim Wade ak xalifa euh, Sall daf leen a génne. de manière euh, arbitraire bon je crois toog na fi trois ou quatre ans yoo xam ne pratiquement mën na wax ne état de grâce la en tout cas je crois qu'il est euh, difficile ñu mën a comparer Macky Sall ak ñi. sur les cinq dernières années. Macky Sall li mu def ñii defaguñu un centième bi wala un millième bi sax donc defaguñ ko donc il est prématuré. de ñu jël naan moom ñoom ñu leen yé yéemal ak Macky Sall. Hmm. parce que Macky Sall li mu fi def mais c'est c'est euh, non mënuñ ko mobiliser sax parce qu'en vérité liberté publique yëpp nga nga dindi ko euh, jël ay euh, ay nit tëj leen ay milliers de personnes yoo xam ne defuñu dara bu ñu demee devant les juges dañ leen di libérer am na ñoo xam ne sax libéré ñu leen sans ñu juger leen hmm. donc am ñu bari ñu dee am ñu bari ñu yàqule. Euh, ci ay kasaw kasaw yoo xam ne teguñu ko fenn parce que comme ni ma ko waxee bu fekkee ne bu fekkoon ne juge bi dafa décréter ne il y viol bu boobaa amul lenn luñ ci teg mais puisque juge bi ne viol amul te viol amul erreur yooyu yëpp ñoom ñoo ko assumé donc je pense que euh, c'est prématuré de comparer les deux. Mmh. maintenant euh, xel moom. Euh, dafay rafet njort di ñaaw njort. Mm-hmm. donc da nga war am ñaar yëpp hypothèse yëpp nga war a teg. xëy na ils sont capables de faire beaucoup mieux que. Euh, Macky Sall parce que li ñu wax li Afrique di xaar ci ñoom moo ñu élevé wu ba peut-être dend ak euh, Nelson Mandela et cetera loolu la ñu ji nit ñi. loolu la nit ñi di xaar ci ñoom mais n'empêche loolu mun nañ ci am yaakaar mais du tere ñu yàq ñu xalaat ne mën nañ def autant que Macky Sall au pire que Macky Sall donc ñaari hypothèse yooyu duñ ci dàq benn donc ñoom ñooy xool xam ne lii la askan wi ji xar ñoom ñu def ay industrialisation def souveraineté euh, dans tous les domaines euh, indi fii état de droit bu boobaa as ñu wàccoog ak askan parce que quand ñoom ñu koy wax di ko répété. Mm-hmm. nit ñu bari dee nañ ndax seen projet mm-hmm. donc bu fekkee ne euh, jàpp nañ loolu euh, ba defekkul ni ñu ko waxee bu boobaa wàccoon bu ñu ko deful nag def ni Macky Sall wala pire que Macky Sall bu boobaa itam askan wi day jàmm jàmmarloo parce que fii ay goro fi ñu nangu kenn teg leen i jàmm donc bu ñu bëggee daw tonk ci ci tànki Macky Sall bu boobaa askan wi taxaw jàmmarloo ak ñoom. Mm-hmm. bu ñu defee leneen nag askan wi tàccu leen bon ñoo xam ne loolu mooy seen warugar. li ñenn ñi jël comme cëslaay pour def comparaison yooyu bokk na ci euh, li ñu euh, tuddee wax waxeet. par exemple président mi ne woon day génn ci conseil supérieur de la magistrature tey mel ni ci leneen la bugg jëm ni mu tasee assemblée bi barki démb ak naxe mbaay bi ci ñenn ñi gis digganteem ak député yi si ñëpp décret ñëw génnaat ci aussi projet bi ñu bëri doon ko xaar euh, ndaw ñi yaakaaroon ne bu ñu ñëwee euh, un mois de yëf yi tàmbalee changé parce que loolu lañ leen digoon euh, loola yëpp gisaguñ ko